bi ñu toogee ñu waxtaan ak ñi nga xam ne moom mooy kilifa yi ñu ne ah ay la yéwén li nga xam ne waroon nañ ko def def nañ ko léegi nag mu amoon nag ay promesse yoo xam ne ñoom jot nañ ko def mais loolu noonu yëpp dañ koy tuddee cadre promesse parce que ba si tey jii nii ñuy wax amul dara dara dara loo xam ne fay nañ ko korite korite jàll na fi euh, pak jàll na fi ñun ñii ñëpp amul kenn si ñun koo xam ne mën na la wax ne def na korite si li nga xam ne noonu la ko bëggee est-ce que loolu jaadu na te moo ne liggéey bi ñuy def dafa noble cinq mille francs mooy cinq mille francs par jour mooy maanaam da ngay ñëw nga liggéey de huit heures ba quatorze heures trente ñu war la fay cinq mille francs ni la koy fayee mën nga ñëw tey jii nga liggéey benn semaine ñu war la fay wala nga liggéey benn weer yow boo liggéeyee ba pare ba toog doo xam sax kañ nañ lay fay ñoom heure bu leen neex nañ lay woo ñu ne la ah am na benn semaine boo xam ne disponible na kaay leen ñu jox leen seen xaalis benn semaine imaginez ngeen liggéey nga liggéey quatre semaine nga liggéey benn weer ñu ñëw ñu génneel la benn semaine kese kese kese ñu génneel la ko. 35000 mais mais mais nag 35000 yoo xam ne bu du ko mat sax parce que mardi la ba dimanche ba samedi. léegi li nga xam ne mooy mardi ba samedi mu nekk 6 jours war a nekk 30 000 et moo ñun ñii du ñëpp sax ñun ñooy dem si collecte yooyu parce que day day dépendre si équipe bi tey mën nañ yóbbu 4 personnes suba ñu yóbbu 5 personnes. est-ce que tey yéen mës ngeen gis nit koo xam ne nekk na prestater de service pendant 7 ans si benn si benn milieu lii kon kon lii lii bu dul jaamu yàlla lan la raison pour laquelle nag ñu ne ñun yoon la tey li nga xam ne mooy sunu payoor déjà ñu yokku ko. parce que kenn gënuñoo noble médecin bi nga xam ne mu ngi def liggéeyam daf ñoo soxla patient yëpp daf ñoo soxla dañ ñoo soxla gannaaw ba ñu waxtaanee ak ñoom ñoom ñu ne ñun di nga li nga xam ne moom mooy suñuy problème dinañ ko saafara donc promesse la ba léegi ni ñu toog mu nekk promesse léegi nag ñu ne ñun dootuñu toogati dañuy woote waat deuxième point de presse yàlla def li nga xam ne moom mooy moom mooy point de presse boobu bi ko defee dañoo ñëw ba si veyu li nga xam ne moom mooy moom mooy fête de l'indépendance ñu ne ñun après si la ñu ki nga xam ne moom mooy chef de service bi docteur Moutala Gueye woo ne ñu ah man de li ma li ma gisoon mooy ngeen bàyyi ngeen teggi seen tànk parce que li nga xam ne moom mooy gouvernement bu bees bi dañoo nekk di def seen mise en place ñun nag ñu nekk ay nit toog xool gis maladie li nga xam ne moom nañ nekkoon parce que di nit day ñëw yow sa papa ñu war ko opérer sa yaay ñu war ko opérer wala sa soxna tollu si diggante ñu ne la sang amul. et moo ay nit ñu ngi fi pour mënoon dem liggéey loolu noonu. léegi ñu ne ñun li nga xam ne moom nañuy def donc dinañ teggi suñu tànk te loolu mu ngi tolloo période kii période korité bi ñun ñëpp ñu nangu ñu ne garaawul dinañ jël 15 jours yeneen supplémentaires yoo xam ne collecte bu amee dinañ dem ñu liggéey ñëw ñibbite te du ñu fay amul problème bi 15 jours yi weesoo ñu toog constaté gis ne ba léegi nii amul benn période boo xam ne teg nañ ko sunu loxo lu dul dañ ñuy woo ne ñu léegi balaa balaa ñu leen di fay da ngeen di ñëw ñu signé leen ay contrat journalier ah loo liggéeyoon ba pare ñu ne la dañ lay signer ku si ne ab contrat journalier pour que après léegi ñu door la fay et que yow il faut nga signer ba pare pour que ñu door la fay est-ce que loolu yoon la si loo xam ne yaa ngi ko ñaq ba pare si loo xam ne yow loolu sa alal la te pourtant ñun am na si ñenn ñoo xam ne bu ñuy ñëw fii nii di di di li di ut li nga xam ne moom mooy sang bu ñuy ñibbi du ñu yor sax paas ñun entre ñun ñun ñooy def solidarité ñun ñooy jàppalante sunu biir pour que ñooñu noonu mën a mën a yegg seen kër te moone ne il aurait suffi tey gis ngeen Sénégal fi mu toll nii li nga xam ne moom mooy don de ñëpp dañ ko war a def seen activité mu nekk benn urgence mu di ne tey jii Sénégal bu fekkoon ne amoon nañ ay poste de transfusion sanguine yu doy bii nii mu nekk sant centre national de transfusion sanguine ñu dooleel ko jox leen ay moyen ba mu doy sëk sëk sëk sëk sëk yaakaar naa ne li nga xam ne moom mooy problème de sang wala ay pénurie dootul amati te loolu yoon la ñi nga xam ne moom mooy les autorités compétentes au passage ñuy félicité son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye fay di félicité également ki nga xam ne moom mooy le ministre de la santé monsieur docteur Ibrahima si ñu leen di interpeller si côté boobu tey yoon la nit bu soxlaa sang parce que fii nii imagine leen da ngeen di ñëw centre national de transfusion sanguine ñu ne service d'urgence muy liggéey matin bi huit heures ba 14 heures wala des fois ba 17 si la ñuy liggéey guddi gi amul service de garde boo xam ne tey bu fekkee ne nit ki dafa toll woon si situation d'urgence mu am ay mbokkam yoo xam ne ñëw nañ taxaw pour may ko deret boo ñëwee fii dañu lay wax ñun duñu liggéey guddi est-ce que loolu yoon la ñun ba ñu toogee ñu banque suñu loxo ole kon ñu lijjanti ñu ne dañuy fay ñu ne déedéet dañuy dem uti ji ay stagiaires pour que ñoom ñuy dem def liggéey bi nga xam ne ñun moom nañuy def ay stagiaires si ñoo xam ne ah maanaam ñu remplacer ñu léegi ce loolu yoon la yow nga liggéey ba pare ñu war la fay fayuñu la léegi ñu ne dañ lay remplacer ban Sénégal lañ nekk ah est-ce que lii yoon la chaque jour ngeen dénk ba ngeen dénk sang dafa manqué du yoon lii nag ñun ñëpp war nañ si kii don de sang waratul nekk affaire CNTS kese parce que ñoom li nga xam ne mooy service de collecte bi li ñu mën a def ñu ngi koy def di waxtaan ak bi tey association yëpp war nañ toog ñu xam ne don de sang da leen interpellé màggalu Touba màggalu Tiwaawan wala euh, gàmmu Tiwaawan tey xalifa bi bu fekkoon toogoon na mu ne ah li nga xam ne mooy bépp pèlerin bu ñëwoon fii si si si màggal bi na def li nga xam ne mooy acte don de sang gëm nañ ne li nga xam ne mooy san dootutul manqué ci donc liggéey bi mën nañ ko def am nañ ñu ko mën a def yor nañ seeni diplôme ils sont compétents donc li ñuy laaj nekkul lu bëri li ñu waroon def def nañ ko kilifa yi dem nañ waxtaan ak ñoom voi de la presse def nañ ko bañ ko njëkkee woon def ñu ngi nekkoon période électorale ñu ne ñu à ah, période électorale la yéen mënuñu saafara seen seen tawat léegi jóge nañ si li nga xam ne moom mooy période électorale bi puisque nag jóge nañ si li nga xam ne moom mooy période électorale bi dañoo bëgg li nga xam ne mooy condition yi nga xam ne moom moo war pour que ñu mën a def suñu liggéey normalement ñu mën koo satisfaire te loolu jafewul bu ñu woowee toog ak ñun waxtaan ak ñun dinañ leen wax nan la ak naka la également li nga xam ne moom mooy collectif prestataire bi dañoo décider à partir euh, lundi bi nga xam ne moom nañ weesu dañuy def grève illimitée dootuñu demati benn collecte te lépp loo xam ne moom mooy conséquence yoo xam ne dina dina découler si loolu noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñoom nañ jël seeni responsabilité